révélation yi. ah ay sëñ As. allahu akbar. laa ilaha illallah. ñaari semaine génn ma. waaw. mbir mi di daw ci man. ngay seetaan rek ma tiit. ah ay sëñ As. doy na waar. loo Lamine. waaw. no révélation tey moom. doy na waar Lamine. Lamine dañoo ne ci période élection mitin yu suufa yi ëpp yu ci kaw. meeting yi. meeting yi waaw. yi suuf. waaw moo ci kaw. waaw dama cee gis ab attaque. ñaari parti ñoo xam ne ñoo bokkoon parti. waaw di meeting ba beneen parti bi di songanteeg moom xeex bu métti di ci am. raak tell tell. ah kenn ki dafa newoon ci parti politique. waaw génn ca ber yëfu boppam. allahu akbar. Lamine yaa ngi fàtte ba mu naan remaniement ministériel. waaw am na. am na wax nañ la waaw. ay Lamine aspiraam awtoon ci réew mi dëkk bi tas. Lamine dama ci gis kuñ faloon. waaw di changer postam at ay directeurs yu ñuy dindi. ci poste yi ne. conseiller des ministres bi ma gis mu. waaw. am na décision buy président di di wane. waaw bu décision bu jotee dina am ay ay directeurs yoo xam ne at ay kii conseillers yoo xam ne. waaw dinañ dindi faral leen leneen lu bees du am. ah Lamine. ay suñ as. sëy bu bees. ko eh, yaakaaroon waaw ñepp taccu di sibile léegi mu tass xam nga leen di booleem dëddale ay way nañ baye dëddale xey rek meni xajak mus allahu akbar dañuy dem ba bayante bëgg a sey bu bu siiw ay way lamine bobu amé nak na metti nit ñi parce que sey bi nit ñi ko bëggoon ndeysaan ah lamine ay sëñ as ay way alal ju bari waaw ju ñuy jox nit pour yaq nit alal ju bari bu ñuy fay nit bu ñuy fay nit ngir yaq morom ben nit ben nit nit ku affaire bi dana mujj weeru de. ku ka ka fay. waaw at ñi ko fay ñëpp. waaw dañuy jotee ci xaalis. ñëw affaire ba mujj siiw. kalaate ba nit ki nga xam ne moom lañ doon jéem a yàq di ko yëg. waaw xam lan la lan la dana ëpp bopp. waaw waaw. ah Lamine. ay sëñ as parrainage yi. Uh-huh. am na ñuy daw yàq seen alal. di sonn ci parrainage yi. waaw lamin xam est xam duñ bokk. luñ bokk. duñ bokk ci élection dañ leen di téye. waaw. gis nga nu mu nii ñuy parrainage yi. ñëpp di daw waaw ñëpp naan danaan am ak ñii nangam. ñi ñuy téye ñooy ëpp ñuy dem. waaw waaw. Lamine loolu dana am ah Lamine. Uh-huh. kuy rejoindre parti pouvoir <laughs> ku siiw. ah nekk ci opposition ñëpp xam ko mu jékki-jékki rek. ak 4 mois des élections mu ni de day rejoindre pouvoir. dem di rejoindre Amadou Ba. ah Lamine homme politique bi ñuy uh-huh. téye du dem. ay waay ay waay homme politique bu mag da gis ñu jooyaat. ah dana yëngatuwaat tuuti waxoon naa la yëngu bi mujj bi. waaw waaw am na de yëngu bi. fan mais mais mais da nga gis ni buñ ko téye réew mi dina xaw a. day yënguwaat tuuti rek mu teyaat xam nga li problème. waaw biddiw ba lañ fay. nga baal ma nañ ma ay loolu nga gis sëñ As. buy gën àddina. yooyu xam lu tax yàlla def. waaw da leen di wan ne maa fi ne. waaw gis a yàlla sax ma si corona yi gis yëpp. waaw yii di am at feebar yëpp. waaw ak yi. waaw daf ñu bëgg a wan moo fi ne rek. waaw om politique bu siiw ancien buy gën àddina avant élection yi bi bu amee di nga ne ay waay sëñ As sëñ As ku siiw actuellement nii may wax yow homme politique boobu mu nga réew ma ma nga mu nga réew ma sénégalais la day faju day génn àddina ay mbiram yëpp pare na day génn àddina ah Lamine allahu akbar ancien ministre boo xam ne ci ci réew mi moom la ne moom dana génn àddina moom ancien ministre ancien ministre kooku moom ndeysaan danaan servir réew si jamonoy Abdou Diouf wala jamonoy Abdoulaye Wade femme bu nekk ci média di joteeg patron ba dàq la ci am ñu koy remplacer télé bu mag coowab télé coowab télé ci ñu bëri ñuy fan yi nag Lamine waaw télé yi moom nañu waañ moom am na ñu waxoon naa la ne la am na TFM ñu bëri ñuy dugg dugg nañ waaw jeune talent yi bëri dugal nañ leen fan yi waxoon naa la ko am na tele boo xam ne jamono jii waaw si tas la jëm ñu bëri nañ fa jóge dem la ilaha illallah dañ dugg ñii si réseaux sociaux yi ñuy dugg ci kii ñi dem ca TFM mais tele yaa ngi recruter télé yeneen télé yi tele bi ma lay wax mu ngi recruter nit ñi comme ça c'est pas possible Lamine TikTok bi. ay ah. mais yoon jigéen laa la waxoon de yaa ngi fàtte jigéen ba. tiktokeur yi da leen a gis bu siiw chaque jour buy weeru buy weeru. maanaam. ma ne la Serigne. ay vidéo dafa am jigéen bu mu seqal. waaw bi di ko weer. dana siiwaat de. ah Lamine day taali. Lamine nag bii moom dama dama ko bañ dama ko ragalee wax. koo xam ne ku siiw la ci réew mi ñu koy jiiñ viol. wóohoo wóo Lamine boobu naa bàyyi noonu déedéet waaw waaw Cité Lac de Guiers ah. combat bi waaw ñu dem ba si biir waaw may gis lu ñuul lu ci am hmm, ci ci combat bi ñàkk am ak ah, ñuul gis combat bi mën naa bañ a am ak la fi combat bu bu arrêté woon waaw ah bii dama jékki-jékki ba mu gis daal gis blessé wala benn mbër bi daal di dellu ginnaaw ay Lamine Palestine as ah ay waay ñu ngi néewal doole nit ñu ñu fa nekk wallahi wallahi ay waay Palestine buñ yaakaar nag ne yàlla leen dedet palestine bo xolé djublu moom mom woon kaaba ga bu njëkk waaye nag ba tey ngi leen di baye xel mo rab leen yàlla bëgg lay lay tek lay tek jalal jafe-jafe waaye palestine dama fa gissat ay jullit ñuy neewal doole ay way niñ ma bal gis na ñuy téye di rendi ay jullit rendi ñuy xati ay way yalla niñu dolel alamin ah, dama gissal lu doy waar ci ben lo motif bo xamne dina am seetet bi yoon mom ay xalé yu ndaw yo xamne dañuy genn samedi rek def la motif rek affaire bi si waat seen télé bi mooy bokk ñu si njëkk ñu koy njëkk a diffuser seen télé bi Allô Sénégal. Ah. ñoo koy njëkk a diffuser bës bi da leen toppaat. Eh. école lycée yi ay waay ndaw yi nañ moytu gis nga jamono ji grève waaw nee na tekk ni ñoo ngi commencé grève yu rëy dana am si université yi. ci université yi da nga gis sax professeurs yi grève Lamine. sëñ As surprise bu rëy buy am ci élection présidentielle waxoon naa ko de deux ans. waaw dina amaat. kuy doon président ku mos doon président ci réewam am na sax ndax ñu ne candidat yëpp kenn mos doon président en sorte. waaw assemblée nationale. assemblée nationale. oh waxoon naa la ne la am na wor yi am de. yaa ngi fàttali ami loolu. waaw sëñ As Badou assemblée da nga faa gis lenn. <laughs> wor yi ma la waxoon am na. waaw xayee nga ko waaw. député 14 député yi génn euh, euh, fële. Euh, bu bu bu yi opposition bi. 14 génn nañ. léegi dañoo xaajaloo waxoon naa la wor yi. Lamine gisaat yeneen wor ci biir 14 yooyu gis naa ñeneen ñuy woraat. di daw di duggaat ci parti au pouvoir. Bougane jógee ko ci parti pouvoir di dugg ci kii ay ay yoo xam ne ku ne day daw. ku ne xam ku nekk di xool foofu daw foofu. wóor ci opposition bu doy waar ci benn homme politique ay nitam yuy génn. waaw di poser candidature ndax ñàkk yaakaar bu ñàkkoon ñàkk ci moom. Lamine nag. nit ku baax boo ànd ak moom. waaw ba affaire jafe-jafe am. waaw ay waaye da ngay déglu wax. day gëm yàlla. dañuy tëb rek génnal seen bopp poser seen candidature dina leen coow bu rëcc. ci Afrique. am nañ métti bu métti footballeur ancien bu mag. waaw bu daan servir réew indi leen ay coupe dina génn àddina loolu yàggatul dara dara dara dara. ci benn footballeur ay waa ca Mali. waxoon naa la si surprise Mali ba. waaw ñi nga ko am fan gis naa fa leneen lu fay ñëwaat. ay nit yu ñuy téye di leen jàpp kenn gisu bokk na ci ay jigéen ak ay góor. waaw ñu leen di wër leen gis dañ leen mujj raay. gaal gi. ay Lamine. inna lillahi wa inna waxoon naa la jeexoon na de commencé waat na ndox mi daa tàngaat. ndox mi day laajaat nit. xale yi dañoo pareegul gis naa ci ñoo xam ne. waaw ñu ngi ci biir réew mi nii di sonn di tax di ree. waaw ci ñuy génn àddina lañ bokk. gaal gi dina pour dina dugaat ndox bi yor mille et quelques personnes laa gis génn àddina. ci gaal gi. Gambie Sénégal Sierra Leone Mali. waaw Nigéria. waaw ñoo ci ëpp ay doom yu lool. mille et quelques personnes bateau de bateau de pêche bu leen di dàq. Hmm. bañ wéer si ndox waaw ba këpp ñoom ñaari bateau yëpp. mille personnes ay kat gën a. dina siiwaat lool ci dëkk bi. waaw ay Lamine. ay sëñ As doy waar ci ab mariage boo xam ne moom neex na. Ah. lu ma la waxoon ci mariage yi. daal taxar naa si na. jeexagul am média yi. am na keneen ku siiw koo xam ne moom. day jeexital waxoon naa la ko. waaw waaw dinañ ko takkaat. mais am na keneen koo xam ne nag ku bees lay doon koo xam ne moom. mësta am jëkkër moom moom ku mag la woon. moom jëkkëram ji moom day doon loo xam ñu ba koy yére parce que dafa dem ba toll ci ménopause mësta am jëkkër ñu koy takk. ah ko dégg kooku yàggul. ay lamin. la ilaha illallah. waar jour bu bees tàq. bu sant Diouf. <laughs> muy fël la. ah illah ay waay bu ko Sénégal jotoon ci Coupe d'Afrique bi moom yàlla mën naa def nag euh, mu wane boppam. Hmm. waaye ragal naa ne bu coupe d'Afrique bu jeexee coupe du monde bi. waaw xale boobu bu génnee Sénégal bu dugg fi di ngeen gisaat beneen Sadio Mané bu gën a garaaw Diouf la sant actuellement mu ngi mu ngi ci réew tubaab bi di fubal. ndeysaan xale bi dina fël Diouf la sant. waaw comme El Hadj Diouf dina génnaat. dina fël. ah Lamine. allahu akbar sëñ As lu doy waar laay gisaat. mooy lan ci maanaam euh, luy xew ci réew mi. lu mel na ne comme lu mel ni ab ray. tiim nit daal xeex ak moom bagaar ba ko. ay Lamine agresseur bi ñuy jàpp. ma tëjee ko nag lu doy waar loo xam ne moom. mooy lan ay waay Lamine mu mu ngi ñëwaat. te bu yegsee moom dina doy waar laaj ma lan la. mooy lan kilifa aada kilifa diine. waaye bi yoon xam fan lay feeñam. waaw ah Lamine ñëwu ko xama fan la. fan ah kilifa goo xam ne la ci côté Tijaan la ngeen baal ma ko. buy génn àdduna wa salaamu aleykum wa rahmatulah. laa ilaaha illa anta subhaanaka inni kuntu min adh-dhaalimiin ilaaha illa allah.